te su boobaa justement moom mooy indi yi problème ñuy dund tey jii nii man mun ma jàpp ne décision de justice moo génne Ousmane Sonko ci liste électorale yi mais décision de justice également moo ne nañ ko réintégrer mais finalement à quel droit il faudra se fier mm-hmm. parce que loolu tamit moom mooy problème bi bu fekkee ne ne c'est une loi moom moo génne Ousmane Sonko mm-hmm. ci list électorale yi mm-hmm. beneen loi ñëw ne la kii li ngeen ko def kat nekkul loo xamante ne nii yoon la da ngeen salfaañe ay ak ak yelleefam na ngeen ko dindee ci yëf yi du noonu dugalaat leen ko ci mais su boobaa bu fekkee ne ne loi ak loi la ñun mënuñu ci am benn interprétation beneen bi sax balaa ñu yegsi ci décision de justice yooyu mooy contumace sax juboowuñ ci parce que le procureur nañ ko jàppe ak les avocats d'Ousmane Sonko nañ ko jàppee. également à ce niveau la ñoom amul kenn ku ci déggoo. kon donc loolu dafa wane lu bëri loo xam te ne nii tey war nañ ko mën a def mu jëm ci li nga xam te ne nii mooy les réforme surtout lu jëm ci wàllum justice le droit sénégalais tey dafa tey jii nii il urge de réécrire justement le droit sénégalais pour nit ñi mën a déggoo ci lenn. que mu leer ñu noir sur blanc que lii lii la lii lii la mais bu fekkee ne ku nekk da nga koy interpréter nam la neexee wala wa ilaa da jël mbir mi kat jàppee ko ne naa ko décoller nii pour li ma arrangé su boobaat nekkatul du droit mais c' est leneen loo xam te nii mbirum jaay doole lay niroon beneen aspect bi moo dina li nga xam te nii tey am na Ousmane sunko état du Sénégal dane terroriste la mais oui et loolu Ousmane répété na ko gis nga keroog ba mu ne day def live. waaw à partir de sa cellule. bien sûr mhm. ñu ne après pour joxe justement des orientations par rapport ak li nga xam te ne nii moo jëm ci euh, lu part bi di jël ci lu jëm ci wàllum élection yi ba ñuy wax euh, Bassirou Diomaye Faye plan B. plan B mais il y une vidéo beneen sonore boo xam te ne nii Ousmane Sonko lu mu ci wax dafa leer nee na Macky Sall ak ay nitam. Mhm. war nañ àdduna bi yëpp. ne képp koo xam te ne kii bokk nga Pastef ak Ousmane Sonko ay terroriste ne même loolu fu mu fu ñu ko teg ñoom ñi porté accusation non xam nga du ma ma revenir ci mais je dis mhm. état bi ne na kii terroriste la mais kooku parewul pour may la chance nga mën a dem élection xam nga lan moo am mhm. Ousmane Sonko état du Sénégal gii ñu nekk nii pour mu mën fi dem élection du yomb parce que état bi am dafa def benn religion sur la personne d'Ousmane Sonko et ses collaborateurs et ils l'ont fait comprendre à qui veut l'entendre très bien en tout ñoo ngi nuy l'honorable maire et député petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam El Hadj Ahmed Aïdara bonjour à vous. bonjour. noonu de. maa ziar. ñoo ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm. delloo ziar wéer nuyu kilifa gi Simon. jërëjëf Ahmed ak ak l' expert. l' le pertinent votre petit frère. waaw <laughs> ah, Mamadou Fofana. en tout cas. borom borom gàddaay. moom wax na ko. Mhm. xam nga xaw ma dañoo am ñaari ministère de la justice xaw ma ñaari. Mhm. ñaari ñaari ñaari justice am ci réew mi wala ñaari code pénal wala ñaari euh, code électoral ak ñaari constitution ba da nga naan à quel nangam se fier mm-hmm. ci ban ngay sukkandiku mm-hmm. yoon moo ko fi jëlee woon ñu ne force reste à la loi loolu la ñu waxoon waaw nit loi moo ko fi jëlee loi ñëppay appliquer loi mm-hmm. dëgg loolu dëgg nul n'est au-dessus de la loi merci beaucoup waaw loi boobu nag tribunal boobu nga xam ne moom moo fi jëlee benn tribunal moom moo am Sénégal benn ministre de la justice benn justice moom moo fi am. waaw benn président de la république benn constitution benn code électoral benn code pénal. Hmm. waaw justice boobu tamit moom moo taxaw wax carrément ne moom ay avocat am ñëw défendre loolu la avocat di jëriñ. Hmm. da ñëw wax défendre défendre ba ba yey attaquant bi mu tranché. Hmm. mais attaquant boobu moom moo tranché ca ca ca waa nguur gi dem fa mbaxana doonee benn bu gën a kawe ba cour suprême mhm. kooku amul woon sax di leen indiwaat ndakaaru mhm. moom moom du àtte li xew mais ni ñu àttee lay àttee moom cour suprême mhm. mu ne ni ñu àttee kat am na lu ca gàllu góose kaay leen fii ci capital bi ndakaaru ñu ñëw indi ko si ndakaaru àttekatu ndakaaru bi tamit wax la waa sigi coor ba wax waa jeexul ñu ne léegi nañ leen delluwaat encore fa mbaxana nekkee waat kooku sax moom lan la war a wax léegi. mais nee nañu pourvoi en cassation boobu nga xamante ni avocat de l' dugg duggal nañ ko looloo waral mënaguñu intégré kii di Ousmane ko ci euh, fichier électoral bi en tant qu'électeur. waaw mais waaw mais waaw mais atte ah, loolu tegul fenn da ngeen a wax ne loolu amul fu mu tegul fenn. léegi waaw non dama ne. waa léegi nañ dem mais loi dafa wax mu ne. attekat bi kat bu xasee ba atte ba pare jeex na. très bien. wala mm-hmm. kenn mënul féete justice kaw loolu la ñu wax mm-hmm. ba pare ñu waxaat tamit ci wàllu loi mm-hmm. ne loolu terewul xam nga gars yi tubaab bi ñuy làkk ay nangam sax <laughs> pas suspensif du gën a dégg da eh, wuy ma da nga ci olof nit ñi dégg ko waaw ñu ne mm. yàqul dara ci lii juge bi def ñoom ca kalaame gu kawee googu noonu waaw loi terewul terewul mbir ma continuer lii ñu exécuté ko en attendant ñu yeggaat fa ne nekkaatee benn. voilà d' accord. xam nga ay mots suspensifs mm. yooyu ñuy utiliser ñuy réeral nit ñi yeeg ah, exécutoire da nga koy wax si olof nit ñi dégg ko dañu ne. waaw àtte bi nga xam ne àttekat bi àtte na ko. waaw décision boobu. waaw kay. Mhm. loolu noonu. waaw buur daa war a wàccoo moom nii dañ kaa war a exécuté boobooy benn. waaw ñaar mhm. mots suspensifs boobu ñuy wax noonu noonu ci tubaab noonu nit ñi di réer xam nga moom mooy la. waaw mooy ne bu leen neexee ñu dem balaa ee dem ba cour waaye loolu yàqul dara mhm. ci lii buur war a doxal nii da koo da da koo war a def nii nii nii nii te yàq dara kon su ma la déggee euh, ñoom jamono ji dañ ko war a réintégrer ba noppi jox ko ay fiche am donte ñoo ngi nekk en en justice ba tey. ñu dem sa ba keroog ñu jeex c'est le combat des avocats nag. d'accord donc loolu mooy li war. loolu moom mooy loolu loolu moom mooy lu war. Mhm. léegi nag li Mamadou Fofana wax leer na. sélection bi ñuy organiser ñoom dañuy taxaw wax la carrément ne la diw doo bokk si élection yi. sélection boobu moom la ñu war a baax. ba pare question d' interprétation boobu foofa nag dañu war a indi réforme nag ci suñu justice bi dañ leen waxante dëgg gis nga suñu justice bi nii bu Sénégal bi mm. mais ba ci diggante ay amende ak dégg nga. Mm-hmm. indem indemnisation. Mm-hmm. amende foofu problème le quitus fiscal la lan la wax. boo yoree buur. Mhm. dégg nga. Mhm. mais am na ñoo xam ne jàpp wax nañ carrément ne mbirum Karim Wade. Mhm. n'a rien à voir. ak ay mbirum quitus fiscal. et cetera et waaw day dem ba conseil constitutionnel mën a dëgg. Eh. mais ñoom ñëpp dégg naa nag euh, kii euh, kii honneur la ñuy daal di joxe rek ñoom ñëpp. man waxuma loolu de dama ne. <laughs> question problème d'interprétation foo ko fekk ci ci justice. waaw mooy nuñ ko bindee leeru. d'accord mais dafa am communiqué nag El boo xamante ni génn na les avocats de ñoom ñoo ne. Hmm. Euh, le recours est bien suspensif. suspensif boobu nga d'accordul yow. mais problème d'interprétation. amagul mais ñeneen ñi le contraire lañ wax. l'agent judiciaire de l'État. déposé gul ah bougé gul. Ah, amagul recours déposé gul. waaw mais dama ne. dama ne léegi nga def recours. supposons recours supposons mu def léegi recours. mais ñoom li ñu wax moom la ñeneen ña wax rek. ku wax ne la non problème d'interprétation la. loolu la gars wax de mais pour lan Mamadou Fofana. waaw ah. loolu mooy ban façon atte atte boo xam ne maanaam yow da ngay xool ni mu la arrangé nga ne man nii laa ko interprété kenn ne la man nii laa ko interprété ñu ne léegi nañ leen toog xaar juge. juge bi ñëw indi troisième interprétation interprétation. bu bokkul ak yéen ñaar ñëpp seen bos boo ilaa mhm. mu jël benn bi. d'accord Mamadou Fofana ndax loolu euh, mën mën nañ ci sukkandikoo di euh, jox dëgg ñi nga xamante ni ñiy lam-laame ni suñu justice euh, amagul indépendance totale. oui indépendance buñ koy wax xaj na c'est à deux niveaux parce que juge bi nga xam ne tey jii nii l'affaire Ousmane Sonko dafa am lu muy wane. Mhm. beneen jàngat la boobu. parce que tey après képp koo xam ne taxaw nga ne wéy justice bi de jaarut yoon mais mun nañ la ne et la décision rendue par le juge Samba Sall mhm. et la décision rendue par le juge du tribunal hors classe de Dakar sur l'affaire Ousmane Sonko. lan coon su su boobaa lan ngay wax da nga di nga ne pourtant décision ba ñu rendre yow jàpp nga ne décision bu jaar yoon na kon donc loolu tey jii nii encore une fois ci réforme yi nga xam te ne nii dañ ci war a taxaw dëgg-dëgg moom mooy comment faire pour ñu mën a am justice boo xam te ni et boo xoolee lu ci ëpp bu ñuy wax indépendance justice c'est par rapport ak la politique parce que ñu ci bëri tey ay hommes politiques de surcroît ñoo xam ne peut-être ay challengeurs wala ay adversaires nañ mm-hmm. ñu ci ëpp ci justice nañ leen jaar jaare pour indi leen ay jafe-jafe et les cas font légion mm-hmm. jarul ñu ci dellu ki nga xam ne moom mooy le parquet parquetier li ci ëpp kooku nañ naan moom moo am les mails parce que est sous la tutelle du ministère de la justice mais quant au juge bi nga xam te ni du siège ki nga xam ne moom mooy juger kooku nañ naan moom am na indépendance pour mën a wax li nga xam ne loolu la loi wax muy lu jëm si son euh, ci ultime conviction par rapport ak justement le contentieux bi nga xam ne moom nañ teg ci kanamam mhm. et c'est à ce niveau là peut nañu war a xoola nan la def de telle sorte que mhm. le procureur le juge du siège ku mu mënti doon ci lu jëm ci wàllum yoon ñu mën a am ci déggoo ci li nga xamante ne nii moo jëm ci ne lii la waa wax leer na bind bi amul dara lu ci mën a lam-laame et que ñëpp ñu mën a tënku ci lool tant que loolu nag amul mhm. tant également beneen aspect boo xamante ne nii au Sénégal mhm. maa ngi koy wax boobu ba léegi bàyyiwuñ ci xel mais gis nga bi ñu ko réglé keneen ku ñëwaat dina ut am nitam di ko jaay doole parce que xam nga moom mooy lan mhm. président de la république boo xam ne ne dañ lay jox trop de pouvoir parce que boo xoolee li ci jëlee ci Senghor ba tey jii ñu nekk mhm. problème boobu noonu la ñu am mhm. président de la république boo xam ne dañ koy jox pouvoir yu exorbitant à la limite yoo xamante ne nii tey dii nii am na ci lu bari loo xam te nii dina ko doxal te ñun ci mën a justement oui allez-y waaw le conseil supérieur de la mm. indi ay réformes xam nga Adama Gaye journaliste. Mm-hmm. le doyen. Mm-hmm. bi ñu ko jàppee. Mm. ñëpp a toog di déglu ministre de la justice d'alors. Mm-hmm. maître euh, Malick Sall mu ne. c'est moi qui ai demandé. au procureur de la République de l'arrêter. xam nga loolu lan moo ko waral. lu ko waral c'est le ministre de la justice. qui choisit son procureur. et ce ministre là c'est le président de la République qui le choisit xam nga chef la. imagine nga toog sa bureau nga ne man maa ne nañ jàpp foofu nag. man maa man maa wax ne dañu leen dem dem leen ngeen jàpp Ahmed dara te yow mi koy wax tuyee politique Ahmed di politique mais foofu tamit nañ leen waxante dëgg nag. justement bi euh, kon moom laa tiim ni Chimère Diop pour sénégalais yi ñuy seetaan buñ ci mënee euh, buñ ko mënee gis à l'antenne alors le président du tribunal d'instance hors classe de Dakar vient d'ordonner la réintégration d'Ousmane Sonko dans les listes électorales nee nañu l'État du Sénégal se fondant sur les dispositions des articles L45 et suivants du code électoral étant usé de son droit de par l'introduction d'un pouvoir en cassation en conséquence décision du tribunal d'instance de Dakar n'étant pas définitive ni exécutoire, Ousmane Sonko reste radié des listes, des dites listes euh, jusqu'à ce que la cause soit définitivement jugée. Qu'en dites-vous? Ça, c'est les de l'État. Oui, communiqué, qui date euh, du 14. Euh, voilà, après <laughs> juste le le l'énoncé du verdict. Justement. Donc ku ci nekk ak théorie. Mhm. Ça, c'est du côté Euh, le recours est suspensif. mais mhm. ñoom déposé guñu recours. dégg gu ma ko bokk xanaa ñu déposé ko xëy ci guddi gi mais jusqu'à hier je pense que déposé ñu donc lu xew. Mhm. lan la ñu bëgg. Mhm. est-ce qu'ils ne veulent pas tout simplement faire traîner les choses attendre le le le dixième jour après la publication de l'acte de jugement bu boobaa dañuy gën réduire. les chances d'Ousmane Sonko et Ousmane Sonko moo waxaat ko. va vers la conclusion. ñoom loolu la ñuy wut en fait. très bien et ci biir loolee stratégie boobu nga xam ne avocat de l' état ñu ngi koy teg. Euh, l' agent judiciaire de l' état ak avocat yi ko ciy jàppale. mais le ministère de l'Intérieur est en train de jouer également en sa faveur. Mm-hmm. très bien. en n'appliquant pas la décision de justice et je le rappelle une fois de plus le juge boo xesee ba prononcer jugement ba génnee acte bi. Mm-hmm. yow l'intéressé. yow yaa xool nan ngay def moom. très benn instant donc de ce fait les avocats d'Ousmane Sonko. accompagné d'un huissier qui dispose de l'acte de jugement dem seeti waa DGE ne ay li yéwén acte baa ngi nii ngir yàlla jox leen suñuy fiche ah doyul ñu dem daaf ne leen yéen acte baa ngi nii lu tax du ngeen delloo turuwaa ji ci ci ci ci ci fichier bi ñu dem fee ñu jox ñu suñuy fiche ah ñoom ils sont dans ça mais actuellement le temps ne joue pas en leur faveur tant que justement le nom de leur candidat n'est pas remis sur les fiches euh, sur les listes électorales Asma Khadija maa ngi lay nuyu di nuyu sama papa Chérif di nuyu Simon di nuyu